ak Rafah TV ngi ñaanal sëriñ taxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ay cëram waaye di beral ak ñaan ki nga xam si ni moo toog toogaayu Cheikh Ahmadul Kabir Mbay di sëriñ Yusufa Mbay yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ay cëram noonu la la ñuy ñaanalee sëriñ maam Cheikh Mbay mii di xalifab sëriñ saam Mbay ku baax kii sopp ko ba tax mu defal ko ngan mu ànd ak ay rakkam di waa àll Bakrin sëriñ Ibrahima Mbay di rakkam ak sëriñ Moustapha Mbay ak sëriñ Mor Cissé di rakkam ndax lépp benn la setu maam Anta Mbay maam Anta Mbay ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbay ñoo bokk ndey ak baay waaye ànd ak tamit ab Abdoulaye Diop moom sëriñ saam dañoo sob sax waaye kii bi mu waxee dama noon waruñoo wax ndax sëñ Abdoulaye Diop mu sëñ Sam fu mu nekk waruñu fa yëkkati kàddu xanaa sëriñ Touba ñu xamante guddi gàmm mu wax ma ko ñu déggante téléphone dem moo waral kàddu yi waaye du leen ndax bëruñu xam-xam tax amuñu ko xanaa kon dañuy jàllale tuuti rek daal di jox sëñ bi ndax amuñu fii kàddu sëriñ Touba lii nga xam se ni def na ko yàlla na ko yàlla fay li ñuy dugal rek mooy li suñ borom wax ci sopp ndax sopp rek mu am solo ndax boo jàngee aaya inna la istara ba àgg ci lëwum jannata sahaaba yi dañoo jëloon seen lépp jox suñu borom muy Ababacar Omar Ousmane Alioune ba suñu borom defal leen xéwal Seydina Ababacar sax benn bis mas nañu ko ana loo fa desee mu ne xanaa yàlla geneen rek laa fa bàyyi kon ku sopp Ababacar Sadiq na def ni màggal ko kon loolu la sëñ tubaa def ñaareel bi sëriñ tubaa xaadimal Mustafa xasida yi ñu doon jàng xale yi di ko jàng xamuñu sax li ñuy def ndax nee na bu yomal xiyaamee sama xasida yi moom la ñuy orne aras bahaa bi xattillahi kullu mursali alal jamia salawaatul mursali mu delluwaat tamit ne sama xasida yi bu yomal xiyaamee moom la yàlla di orne aras ñu ne ko bindal mu ne kitaabati taduuru taxta al ars bayna al kiraami abidi zil fars ñu ne ko ak ban mu ne sama xasida yi bu yomal xiyaamee su ma téye xalima gi di bind aras mooy njëkk a jaay ñu ne ko bindal mu ne isa katabtu su may tagg ihtiz day baa ci arsul baaqi aras wa sabahat ñu sabal almalaki malaki yi ku sopp si ahmadou bamba xadimal mustafa na def li màggal ko kon sopp googu rek laay indi ku mu ko def rasulullah moo tax mu bëgg ko nu mu ko soppe day tagg di tagg wax nan ci xissa ndax fekkee wuñ ñu ne jamonoy karam basam tagg na rasulullah di ko tagg ba daa jim doon taggee jeex mu bënn yaram wi capp ci xëllima gi di ko jox rasulullahi naan ko dammi sama dara ci ren jëlal summa ahli ñi ma àndal jëlal wa awlaadi samay doom jëlal al fiddaaw lawu mu ne ko képp ku ma a bëgg far naa ko ndax yow ñu ne ko bindal mu ne maxat mahabatiyal muxtaaru sayduna xubbal maani wal ahlina wala wala daa daa di koy tagg di ko tagg ba rasulullahi ci boppam ana lu mu ko jariñ waaye nee na ba ma koy tagg dama koy di ko tagg ba si yàgg rasulullahi jàpp sama loxo bi ne ma kaay ñu dem suñu borom benn waaye na ma da ngay daanu ma ne ko demal ci jës bu sëñ Bamba bihi li rabbi afyadi wa jaadali bil jaydi min xayri xaati wa kami ci sopp rek laay indi fi ñu koy tëjee mooy maam Cheikh Ibrahima Fall lam Fall Babul Muridina keroog bi Serigne ba rëddee rëddu na ku jéggi safara nga jëm dafa tibb rëdd ba wan na maxaatu maasale ci des ñu ne ko foo jëm mu a ca sëñ bamba man bëgguma ajana ragaluma safara xaqiqa an tashadaha ne jàkk jalal jàkk jamaal ja àdduna ak axira la mu ëmb ajana ak safara la mu làmm sa yoon sa ñoom bëggoo wutoo gisoo ca kenn fi nga xam se nag mooy tëj mooy sëñ Modou Fall bu kokki mi nga xam se nii mooy moom taalibe maam Cheikh mbay la woon mooy sëriñu maamu ñii moo la ko defar kooku am bërum làmm la woon musta jàng alxuraan waaye nee na bëgg gi mu bëgg maam Cheikh Mbaye ci la ko suñ borom defalee fathu ba mu xam lépp ñu ne ko bindal mu ne uhdi hubbi lahu fatha li jumalal funun min gayri ma taallum min zil funun ñu ne ko léegi noo ko jàppee mu ne mu ne araau maa araau xaaliqul anam min sirrihil maktub min gayri naam nee na bëgg gi ma ko bëgg ci laa demee bëgg secret boobu sirru bi nee na bëgg rek te jàngul de ban ko laajee ci tradition bi en français dane aux géants des géants je rends meilleur hommage dans l'intimité de tout le temps. À lui, créateur de jumets, montra ce qu'il montra de son secret caché, il admira. Arème de mon amour pour lui, accession aux sciences sans inscription auprès de professeurs en sciences. Homme, j'ai juré sans avoir besoin d'expression, notre Ahmed est maître de l'association. ana fu ñu koy tëjee sëñ Sambay ku sopp sëñ Sambay ne def ñu màggal ko bismillahi ma taggati njiitu way xam-xam yi sëriñ Sam suñu sawetaas bi fii hasa zamani wala réew sëriñ Muntaqa ku sopp sëñ Muntaxa na def ni màggal ko di soppey Moustapha moo xamal waa Touba mbuuti maam borom Touba saa mbay mu jaddid la waxam ja kaamil la kàddoom ya benn la cee bu sopp la keroog ba mu ganee àdduna la maam Cheikh Mbay na fóore la ibnu Cheikh al dem na fekk waajuram wa raw na liggéeyaloon na boroomam ba rawoon ni moromam yeewoon nay ñoñam sigguloon nay mbokkam jongaloon na naari ci langu araab bi jaaxaloon na tubaab bi ci langue nasaraan bi laqoon nay diplôme amoon na xam-xam nëbboon nay tam fekk loolu moo gën Serigne Sam mbay mi ngi fi ndax jëfam jaa ngi fi kasatam yi gindi rawatina mbind mi soppee di jariñu ngir seetu fagaru ku ko laaj mu tontu ku ko somm romb soo ñëwee mu may la ci waaye boo ñëwul sànq ji ngën gi na bi mooy soppi ñun suñu sàmm raw na ca waar ya tool yi maam Cheikh Mbaye ci la jëlee mbóot ya ku weddi sama wax ji na dem ba kokki daaray kokki ku fa dem tekki wàllu am am sëñ Sam du wàllam wàllu xam moo ci jël ndam maam Mor Jaara mooy turu mag wa magi Cheikh Bamba mooy turandoom ja Serigne Mountakha ma mooy xaritam ba ñoom ñaari gaynde yi ñoo bokkoon waar wa ibnu Bamba di woote Serigne mbay di xamle ñu ànd di yeete di sonal seytaane ñu baax ñi dem nan ñi fi des dëdd nan ñeneen ñi yàqu nan lu bon ñu daga nan ñii xaalis la ñu am soo amul duñu la xam soo gëfe gàdd fan ñu dëdd gañe nan lii daal ci gàttal mooy li xaj ci wax ji leneen li ci des ñu laaj ko fóore yoon wi man kat gumba képp laa jóg di lambati yoon yi njaccaari ñoo xam dëgg-dëgg lex wi na ngeen ñu jéggal nañu yàlla jéggal lépp lu ci njuumte al naasimaha sadiey jang tilmidi cheikh ahmad kabir mbay yàlla na ajo jaam yëpp faju bismillahi rahmani rahim asalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil wujud sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa mbokki jullit yi kilifa yi fi toog mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu xaq di leen baal xaq di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal di ñaan ku fi ñëw ku ne tànk yi lay indi ak yi lay delloo yàlla na ko suñu borof borom def ay jéego ca àjjana di jël kàddu gi ci turu sëñ Cheikh Ahmadou Muxtaar mi nga xam ni moo fi xalifa sëriñ Sàmbay di jaarale nuyoo bi ci moom ñu jébbal ko sëñ Ahmadu Muntaka mi nga xam ni sëriñ saa may moom mooy sëriñ saa ñu waxal ko seen bopp ñépp dégg ko di ñaan mu yàggal ko fi te wéral ko sëñ Ahmadou Mokhtar sëñ Baye Cheikh nee na mi ngi yónnee kàddu googu ci sëñ Mountakha di ko jottali it kàddu soppem ba di sëñ Youssoufa mbay mi nga xam ni moo fi Cheikh Ahmadoul Kabir loolu it di lu yàgg ñu koy dundal ba ci sëriñ Saam ba ci Mbay muy kër Cheikh Ahmadul Xadim ak kër Cheikh Ahmadul Kabir du ñaari kër du ñetti kër benn kër képp la loolu di lislaam suñ fi gisoo nit kër Seydi Haaju Malik it du nu jaaxal ndax Cheikh Madou Kabir radiallahu anhu mi nga xam ni mooy wéy juru sëñ Saam dafa daan wax ni dama fi nekkoon nag sama ñaari mag ñu dem ku nekk dénk na ma sa njaboot ku nangu maay sa sëriñ ku nanguwul it maay sa sëriñ ñu koy doxal ba léegi di ñaan sunu borom bi subhaanahu wa taala mu saxal ko ba ba di taxaw ci kanamu mag ña nga xam ni ñoo fi bàyyi woon kóllëre googu di nuyu it soppe bi nga xam ni ak ñi mu àndal ñoo taxawal bés bi waaye jiital ci nag ay waajuram ak aki magam ak mbokkam ak waa koñ waa gox bi yépp nag ak képp kuy si sëriñ Saam mi nga xam ni nag moo waral bés bi ñu koy sant ñu koy sant ci barab bi sëriñ àdduna yépp a koy sant te lim koy sant it moo ko def ci ñoom ndax li ko taxoon a jóg wax nañ ko sànq ñu enregistré ko ci télévision mbile mooy mucc jaam yi rekk ko taxoon a jóg te mu def ko it ci ndigalu sunu borom bi subhaanahu wa dafa daan wax woote ci yàlla yomb na waaye bi isnillaahi gaa jafe am ca ndigalu yàlla te man am naa ko ci sëñ Muntaxa Mbàkke la ñu déggee ci làmmiñam boobu ñii ñu ngi toog maa ngi toog ci wetam fele ca Tuubaa ndax boobu ñi jëkk a sos daayira soppe sëriñ Touba daanaka kenn jéegu kenn jiituwa ci waa Touba ñu jàpp bés xamal ko ko di ko ci laaj ndigal mu ni leen bés bi dama bëgg ngeen fomm ko ba gannaaw poroxaan ndax sëñ Moustapha dafa ma soxla falaa jëm te lu nu dajale muy ay soppe sëriñ Sam man mii may doon njiit la moo taxoon bés boobu ñu sopp ñu ñu dàq bés boobu ba ñëw taxawal bés ba ca Touba mu ñëwal boppam bés boobu moo ko jiite moom sëñ Muntaxa tàmbalee ni maag sëñ saam du ñaar du ñett benn rekk lañu teg ca ni li muy wax du lu muy jàng ci téere yi ilmu la duni la ca sunu borom bi la jóge rangooñ yi wadd soo demee ca kaset ba sëriñ Ibrahima ma di doomu sëñ mbay di rakku sëñ Cheikh Mouhamadou Mokhtar mooy wax ca kaset ba ñu koy dégg mu naan ko waa sëriñ bi soo jooyee ñun lu ñuy def sëñ Muntaxa egg na foofu ak sëriñ Sàmbay ñi ko seede it seede nitu yàlla la te li ko fi indi mooy mucc jaam yi ki ci jiitu mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ibnu Cheikh Madou Bamba daf ko daan wax ni ko sëñ Sam xàmmewu ma la ak alxuraan te sëñ abdulaat ku nekk xam ne amul caaxaan sëñ Sàmbay lan moo ko fi indi woon mooy defar xolu doomu aadama yi moo tax bi mu demee it ci xolu doomu aadama yi la ko suñ borom bi denc ndax dafa wër àdduna bi mu fi jógeeg léegi quatre vingt ak léegi ku nekk xam na ni yàggul mboole seen juróomi continent yépp sëriñ saa wër na ko foo dem yaa ngi dégg baatam Sadio wax na ko léegi ànd ak sëñ mu sëriñ Mourtada Mbacke ibnu Cheikh du Bamba fu mu dem ñoom ñaaree ànd ci atu zahir benn at la ñu magantee sëriñ Murtada 1921 sëriñ Sam 1922 am na at moo xam ni sax passeportu sëriñ Sam dafa tardé dugg ci circuit administratif bi sëriñ Murtada dafa jëleen su demul duma dem bi nu ñëwee ñu jël passeport bi indi ko far sëriñ Saam ak sëriñ Murtada seeni passeport jaawaloo mu indi passeportu sëriñ Murtada Mbakke bés boobu bàyyi Cheikh ba guddi la ko sëñ Saam jox passeport bi ni ko demal nga yóbbu ko ndax avion bi heure sàngam la war a dem diggante Louga ak Dakar bi Baye Cheikh egsee Dakar Serigne Mourtada dafa ni ko foo jaar mu ni ko ci tali bi bi ma koy nettali dafa ni ma oto bi def naa deux cent cinquante kilomètres heure lay daw waaye dawal naa ko deux cent te xam naa ni du ma dee ci yoon wi ndax ca Serigne Sam laa jóge ca Serigne Mourtada laa jëm xam nga ni ñooñu sore nañu Mbàkke ak mbay mbay ak Mbàkke benn dong la sëñ Fàllu Mbàkke radiyallahu anhu ki mu tudde Cheikh dul Kabir mook xalifa sëñ Sam bii du nu tàqalikoo guddi du nu tàqalikoo bëccëg ñoo bokk fu leen yare ca kër maam Cheikh maam Mbàkke ma nga fële ca Touba ak këram muy benn famille sëriñ Sam li ko taxoon a jóg nag mooy dafa am lu doon bëgg a raaf mooy defar xolu nit ñi tarbiya leen sëriñ Sam waxul ak yaram waxul ak bakkan waxul ak nafsu xol lay waxar xol lay defar xol la sëriñ Sam di defar te nit ku nekk suñu la defarul mënoo baax ku ñu defarul sa xol doo baax mukk ci àdduna moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ni am na ci yaram benn morso yàpp boo xam ni su jagee jagal mboole seen yaram yépp su yàqoo yàq mboole seen yaram bi te loolu mooy xol inna fil jasadi mudghatan iza saluhat saluha laha irul jasad wa iza fasadat fasada laha saa'irul jasad alaa xalb sëñ saam jóg di defar xol yi di defar ruux yi waxtaan wi mënut a gudd ndax guddi na ba noppi bi nga xamee ni waxtaan na Gédé bés boobu bi ñu ko annoncé ci télévision bi man wu wóoroon na ma ni sëñ Sam du dem Gédé ndax boobu yaram bi sutaante na sutaante boo xam ni ñu ngi koy wax ci tele yi waaye dama ni sëñ Sam mënta dem Gédé bi ñu yeewoo suba ma jël sama pliant jox ko sama doom ni ko yóbbul ma ko ca jàkka ja génne sama téere di jàng seen sëriñ saa mu génne ci biir kër gi ma ni alhamdulilah sëñ bi day nga neen di doxantu duma dem sax nag di ko dogale ji damay bàyyi ba mu doxantu ba noppi ma jóg nuyu ko ma toog ba yàgg am ku sëqat sama gannaaw ma xool muy moom ma jóg nuyu ko ni alhamdulilah sëriñ bi mu ne maa ngi féex bu baax daat ni ma nanga nga seeti na nga fexe ba am kaset ba ma defoon gede ma ko sëñ bi dem nga gede mu ni ma waaw waaw biig taal naa sama oto dem gede dellusi ci guddi gi mu ni ko waaw kaset bi nga may wax ni dana ko seeti gede xanaa gede danga fa wax lu particulier mu ni ma waaw ndax gede dama dem fekk ñu siiwee xam-xam ma wax leen lu nekkul ci téere yi bés boobu loolu la ma wax dama dem gede fekk leen ñu siiwee xam-xam ma wax leen lu nekkul ci téere yi mooy la sëñ Muntaxa waxoon gede moom looy jàng ci téere yi matul nga dem di leen ko wax ñoo jàngal réew mi kon soo ñëwee bëgg a waxtaan ak ñoom daa leen wax lu nekkul ciy téere bés boobu roox la waxtaanee ca ceer gede la mu ca wax ci moom lañ ko ma a dégg te yaakaaram kenn dootu ko dégg ci keneen sëñ saam ngir mucc doomu aadama rawate na xale yi ndax iblis moom ñaar la soxla xale yi ak jigéen sëriñ saam ngir sowe xale yi li sëñ Bàmba radiyallaahu daan wax tubaab bi jëkk na ma ci jëmm yi waaye jëkk naa leen ci xol yi xol yooyu mu leen jëkk moo tax xale yi wëlbati ko gisatoo sax taalibe yi ku ciy sol ay yére tubaab xale lu mu tuuti tuuti mi ngi sol ay bàyyi laa tam di dem yoon pour xale yi mucc mu dem wuti jumtukaay ya nga xam ni moo leen di musal waxuma baatin saayir laa wax dem jàngi tubaab ba jàngale tubaab jël boole seen téere Cheikh du bàmba yi nga xam ne ci lay jàngale diine ak yi nga xam ne ci lay jàngale rasulullahi lépp sëriñ saam jël ko jële ko ci arab ga ko sëñ ma bind yóbbu ko ci tubaab jox ko xale yu njàng ko koo xam fa muy jaar ndax ba muy jàng tubaab moom jàngul tubaab pour def nekk ca dara booy xalifa Cheikh Amadou Kabir ay junniti di ko topp ci gannaaw bismillah tàmbali waxtaan wi gannaaw ba ñu defee muqaddima ñu fas yéene tàmbali waxtaan wi ñu daje fi ngir li sëriñ saam def ci jullit yi ba jullit yi bëgg ko def ko ci seen xol ba ko taxawal yu mel nii ndax nit day mbindeef mu sunu borom bi bind def ci jëmm def ci roox def ci nafsu bakkan boole ci xol alxalbu xol yonent bi sallallahu alayhi wa nee na suñu boroom xoolul suñuy jëmm xoolul suñuy alal suñuy xol lay xool ak suñuy jëf inna allaha laa yanzuru ila ajsaamikum wa amwaalikum lakin innama yanzuru ila qulubikum wa ahmalikum suñu borom bi loolu muy xool yomal xiyaam moo taxoon sëriñ Sam jóg moom la ñuy donn ci rasulullahi moo taxoon mag ñi fekki Cheikh du Bamba jébbalu ci moom ngir mu defaral leen seeni xol ndax am na ci mag ñoo xam ne bi ñuy seeti Cheikh al ñu ngay waxanteeg néew ya ca bàmmeel ya te xam na ni xam loolu man loolu taxul nga mucc ca àllaaxira yow ma laa yan yow ma laa yanfau maalun wala banuuna illa man atallaha bi xalbin salim suñu boroom bi nee na bés a ngi ñëw boo xam ni alal du fa jariñ dara doom yu bari du fa jariñ dara lan moo fay jariñ mooy nga ñëw ci sa boroom indil ko xalbun salim xol bu mucc ayib xol bu mucc ayib dong nga taxoon mag ñi seeti Cheikh Badou Bamba dindi ayib yi ci xol yi moom la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam defoon ci sahaaba yi loolu mooy diine ku sa xol mucc ci ayib yi soo jullee ñaari ràkka mu wecci ni julli yoo xam ne doomu aadama yi def nañ ko ndax jëf yi amulu benn valeur lu dul yéene ya dafa rafet innamal ahmaalu binniyaati yéene ci xol lay ne su xol ba baaxul yéene ba du baax jëf ja du baax ab yéeféer su jullee timis ni mu ko war a defee julli geer na mu ko war a defee weer weer weeru koor ni mu ko war a defee ndax yooyu ay jëfi saayir la yoo xam ne danga koy jàng ci téere yi yàlla du ko nangu lu tax nit ka ko def la yàllay xool xool ba nan la mel naafeq bu jullee yàlla du ko nangu innamal ahmaalu binniyaati jëf yi ajuwul ludul ci yéene yi yéene yit ajuwul ci melo xol ba yéene ba génne moo tax sunu borom bi xoolul sunuy melo biti xoolul sunuy alal innama yanzuru ila qulubikum wa ahmalikum seeni xol moo tax sëriñ saam bi mu jógee fa mag ña jaaroon rek fa la jaar xol yàlla fekki te nit moom ba ca aadama ba léegi nit ñëpp am bakkan nafsu wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nit ku nekk dugg nga ci aaya boobule moo tax imaam Ghazali radiyallahu ni man daal li ma gën a jaaxal mooy nit ñi nga xam ne gëm nañu yàlla te yàlla ni xol bu ne def naa ca lu ñuy wax nafsu te bakkan boobu nag yenkewel naa ko ak caay-caayam yenkewal naa ko ak ragal yàllaam la corruption et la pieté xol yépp a ko am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo yónni ay malaaka ñu wàcc xar xol ba génn ci cëru seytaane googu li tax sëriñ jóg mooy wàllu caay-caay boobu nga xam ni ku ñëw indaale nga ko fa alhamaha fujuuraha caay-caay gi wa taqwaha jële la ca fujuuraha yóbbu la ci ragal yàlla loolu mooy diine diine du sikkim bu gudd du yëre bu gàtt yooyu meññitu diine la moo tax ku sellal sa diine rek tuuti jëf doy la xallis diinaka yag fii ka xalilan min al ilmi xalilun min al ilmi sellalal sa diine tuuti ci jëf doy la mag ñi fi nekkoon ànd ak Cheikh Ahmadou Bamba gisu leen ci déggu leen ci ku naan dafa daan julli ay julli guddeeg ay million laa ilaha illallah déedéet sëñ Bamba defar defar seen xol defar goo xam ni ñaar seen ñaari ràkk wecci na ñaari ràkka junni nit ci benn béréb war na sëñ saam ni sunu borom bi xol yi lay xool tey loolu yonente bi salaat mënu ko jàngal fu jóoraha wa sëriñ saam nag indi luy fóot xol yi jëlee nit ñi ci caay-caay ga yóbbu leen ci ragal yàlla ga moo tax mu ni woon fii ba saa di taxaw sama kaset yi moo fiy seexu tarbiya moo fiy seexu tarqiya te mi ngi tarbiya xol yi nag mi ngi tarbiya xol yi génne ci wàllu caay-caay googu dugal ci wàllu ragal yàlla sëñ Saam ku ko déglu rek yàgg ragal yàlla ku ko déglu ndax waxul ak jëmm waxul ak bakkan xol lay waxal xol mooy lan soo demee ci kaset ba mu def diine ak ngëm ma nga cay wax ni xol mooy ndab li taawu ngëm di jël melo béréb ba nga xam ni fala nit ki màgge ca kaset ba daa ko dégg loolu mooy lan xol alxalbu xol mooy alxalbu baat bi dana tekki ndab ni ko sëñ Sam waxe dana tekki loo xam ni day soppiku di wëlbatiku melo bu nekk mu am ko moo tax sëñ Sam gis ko damu ko def dafa ni mooy ndab li taawu ngëm te di jël melo béréb ya nga xam ni fa lay màggee kon mën naa mel nu ne kon mën naa mel nu ne moo tax ñu war a tënk xol bi nag génn ci ayib yi mu war a dem ci ragal yàlla ak leer moo tax Cheikh Madou Khadim radiyallahu anhu ni yaa muqallibal quluubi qallib quluubana anil uyubi yaa muqallibal quluubi yow mi nga xam ne yaa bind xol muy wëlbatiku di am melo yu dul yu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na melo xol xol dafa mel na xobu garab boo xam ni su ko ngelaw li uppee muy jëm nii fu nekk mu jëm fa loolooy xol xol bi ëmb lu ñuy wax ruux inni xaaliqun basharan min salsaalin min hama in masnuunin fa iza sawaytuhu wa nafaxtu fiihi ruuhi fa qaw lahu saajidiin ruu ngoog suñu borom bi ni malaaka yi damay bind basharan nit koo xam ni maa ngi koy binde ci salsaal muy ban bu wow bu jógee ci ban bu ñuul kukk masnuunin malayable nga xam ni noo ko mën a defere rek mu topp loola waaye su ma ci ëfee samag wal su ma ci ëfee samag ëf samag wal isa nafaxtu fiihi ruuxi fa qawlaw saajidin na ngeen rot sujjóot ñeen loolu muy sujjóotu màggal lu tax ndax nit li mu yor dafa rëy mooy ruuxullaahi muy leer goo xam ni li sëñ sa am di wax ni xam na yàlla bëgg na yàlla bi mu duggee ci yaram lan ko tëj ñépp a ko bokk waaye ñii de seen bos day nelaw ñii seen bos yeewu na waaye fittiwul mooy reyone sëriñ saam ñëw xam ni xol yaa ngi nelaw mu ñëw ni pëkk pëkk xol yi yee leen ndax fa lay tàmbalee ndax xol danga koy yee ba noppi xonte ko la mu war a lekk mooy jaamu yàlla ak leeru yàlla bëgg ku baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni xad aflaha man jaala qalbahu waa'iyan texe na képp koo xam ni def nga sa sa xol muy xol bu yeewu sëñ saam day yee xol yi moo tax xale ba doon dem ci ànd ak ki moromam di caaxaani ba mu egsee ca bitig ba ñuy jënd xaw ma lan mu dégg borom bitig ba teg bànd ba ba sëñ saam egsi ci guddi gi jëkk ci bàmmeel ku ko dul bàyyi xel lu la neex defal waaye faw nga jaar ca xol ba yeewu mu ni gaa ñi mënatumaa dem daldi dellu këram ñibbi ca guddi ga la faatu ñu yóbbu ko Touba. rafetug mujj sëñ dafa ñëwoon fekk xol yi nelaw mu yee leen waaye du wax ak bakkan yi ñuy tëb ak dal di la jox xaalis ngay def sa biir poos déedéet loolu yomb na qad aflaha man jaala qalbahu waa'iyan la rasulullaay wax sëñ Sam xamit ni ndax kasetam yi soo koy déglu junni nit yu nekk ci biir saal bi ku ci nekk daa ci jël sa wàll ci kam kem sa istixdaad sag waay taay mu istixdaad daal mooy disposition say istixdaad moo tax mu daan wax sëñ Bamba dafa daan wax ni bu leen ma xalab xalab leen law bi bi yatt këll yi ndax nit ñi bokkunu ñëpp mën noo mel na Cheikh Rafal ñëpp mën noo mel na Cheikh Mas sëñ Masaba Diop Saam ñëpp mën noo mel na maam Cheikh Ibra maam Cheikh ndax danoo bokkul istirdaat bokkunu istirdaat sëñ Saam sama mbër ma dafa daan wax ni am na ñoo xam ne danoo ñëw ci sëñ mbàmba ngir mujj seen sempi seeni jë seeni gétt ca safara dem seppi sampi ko ca ajjana te kenn du ko dindi ñooñu lool rek la la seq ak ñoom safara leen jëmoon sëñ Bamba dem na sempi seeni gétt dem samp ko ajjana seen istidaat fa la yem mënu leen def ay walliyu ndax seeni istidaat eggul ci loolaa waaye réew moo xam ne ku nekk danga bëgg a nekk si waliyu li sëñ Cheikh Tidiane si bu Tiwaawan al Maktoum ni Sénégal dem na ba ngeer goo bàcc waliyu génn ci waliyu daanaka ñu ëpp taalibe yi léegi kon istidaar bi dafa am solo am na ñoo xam ne àjjana la jëmoon waaye faw ñu jaar ci xisaab ñu isaab leen ñuy soog a set dem àjjana ñooñu ba ñuy dem ca sëñ Bàmba lu ñu fay wuti mu dugal leen ajjana bi xayri xisaabin am ñoo xam ni ca yàlla lañu jëm seen istirdaat passé na yooyu suñu borom bi da leen a bind ngir ñu egsi ci moom ñu yóbbu leen ca yàlla la leen gàllankoor lay dindi ñu egg ca rabbul izzati jalla jalaalu moo tax rasulullaay nii annaasu maadin ka maadinil fiddati wa zahabi xiyaarukum fil jaahiliyati xiyaarukum fil islaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ju rëy nee na nit ñi dañoo mel na ay mbelli xaalis ak mbelli wurus mine d'argent ak mine door ka leen gënoon ca jaahiliya ja ca ceddo ga moo leen gën bi ngeen duggee ci lislaam isa faqahu suñu déggee nag diine suñu déggee diine loolu mooy lan mooy am na ñoo xam ni seeni istixdaat dafa mel na wurus boo xam ni soo ko jëlee ca mbell ma di ko liggéey di ko def ci taal bi di ko ruyal daa koy yóbbu ba mu paase wurusu ngalam nga liggéey ko ba def ko caqu caqu xaalis boo xam ni day yéem àdduna kon loolu moo lay wan ni nit ki nga xam ne dafa ñëw ci sëriñ bi indi istiqdaad boo xam ne danga koy méngaleeg xaalis sëriñ bi mën na koo def ba muy xaalis bu sell bu set bu rafet ba mu def ko caq boo xam ne day yéem ñëpp mu delloo la say mbokk waaye daa jaar ci taal bi de daa jaar ci marto bi de loolu mooy tarbiya ka ca des nga xam ni moom istidaat bi mu nji bi yonent bi wax naan mbellu wurus moom seddaloor moom yi ñu jaarale ko fañ ko war a jaarale di ko fa jaarale di ko fa jaarale di ko ruyal ak di ko tëgg ba defar ko ba mu nekk caq boo xam ni or contrôlé leer lay doon mu jël la delloo la say mbokk nga yéem àdduna waaye benn nit benn mbindeef mënut jël xaalis def ko wurus wala mu jul wurus ko def ko xaalis kenn mënu ko kenn loolu la yonent bi jàngale la nga doon nag daal la yóbbu ba fa nga ca mën a yem moo tax sëñ saam sunu mbër ma nii sunu boroom keroog yamal xiyaam ku ci nekk ci sa kemtalaayu kàttan la lay àttee su ma bëggee àtte lu tax defoo la sëñ Bamba def xam nga ni man kon safara laa la mu àttan man ko suñu borom bi waajale ko man aw ma loolu kon nag yanam kenn duma ko laaj moo tax ba mu demee ci bureau borom ndar boobu yooyu ñuy nettali la ñu wax ba mucc loolu lañu war a wax seen istidaat foofu la tollu ñoom lañu ñoom egg nañu fan war a àgg takkal na leen seeni garab ñu dem seen yoon sëñ Bàmba mi nga xam ne am na beneen istirdaat beneen waajtaay bu ko sunu borom bi waajtaayal yett ko beneen këll bu bokk la këll yooyu lañoo ñu sañ wax ba mucc moom sañu ko ndax su ko waxoon su ko waxoon kon la mu def def ko ba muusal jaam yi du ko man su loon demam nga walaf nasaraanu te kon ñëpp dem niiraanu kon xam na ni bokkul ak ñoom responsabilité nit day xam responsabilité am sëriñ Saat ba mu ñëwee rek la xam fa mu jëm su suñuy nopp ba muy tuut tànk di dox di daanu mag ña naan téye leen gone gi maam Cheikh day jël kaala ga def ca gémmiñ ga ni gone la waaye fóore la gone la waaye fóore la kon ba muy nekk fóore ñëwagul ba muy nekk fóore ñëwagul moo tax mu daan wax ni man mii bokk naag rasulullaay benn mbalk sangu ci ma jël sama loxo bu tedd sama loxo ba teg ko ca xut bu xat mu nubu waga bokk nu ay istixdaat te ña àndoon nag démb ñooy ànd tey kenn mënta wutal kenn sëriñ sëriñ boo àndal ca azal ca ca ba ruwóor di duggagul ci yaram yenn àndoon yëfi du tey démb la woon yëf du tey démb la woon moo tax addis yi dañ ko dul jàng moo tax ñuy weddi mag ñi dañ dul jàng addis yi dégguñu sax addis na nam mel ndax yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam su ne xiyaarukum fil jaahiliyati ña gënoon ca jaayili ga ca ceddo ga ba ngeen duggeen lislaam ñoo gën ñu bëgg koo firee ñoom Umar nga xam ne ay ceddo la doon bare bare doole ñeme du loolu du loolu yéen ña gënoon këll te duggagu leen ci lislaam ñi gënoon istidaat te dégg duggagu leen ci lislaam mooy ca ceddo ga su ba duggee ci lislaam it ñoo leen gën këll ñay or or lañu ñay xaalis xaalis lañu te amul kenn ku sunu borom bi def nga bon completement amul kenn ku mu def nga baax completement amul fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nafs bu nekk am na caay-caay nafs bu nekk am na ragal yàlla sëriñ saam nag ñëw di buddi nit ñi di leen jële ca fujuraha ca lëndëm nga di leen sànni ca taqwaha loolu mooy diine rasulullaay nee na sallallahu alayhi wa sallam al arwaax junuudun mujannadatun dégg ngeen junuudun ay soldaar lañu mujannadatun yu nu rangal yu nu rankale yu nu rangale maa taarafa minu min minha taxaalafa maa tafaaraqa maa tanaakara taxaalafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi junuudul mujannadatun ay arwaax la wax de duggagul ci yaram de ca la ñu nekkoon ay soldaar yu rang ña xamante woon ca booba miinante ca booba jegente ca booba bi ñu ñëwee àdduna it taxaalafaa ñoo miinante mën a demalante mën a dikkalante ña jiitu woon jiitu ña ca des topp ca moo tax sëñ saab ni ruu ya ëppoon doole ñooy rot ruu ruu nga xam ni ñoom miinanteeg ñoom indi leen aju kon ña àndoon démb ñoo ànd tey moo tax watawaaso bil xaqi watawaaso bi sabri mën a dox seen diggante am na ñoo xam ne du ñu déglu sëriñ Samba ilaa yawmi diin ndax seen ruu ya dañoo tanaakaraa dañoo umpalante woon ña woon ak ruwam ca démb bi nu ñëwee àdduna suñu déggee baatu sëriñ Sam dootuñu ànd ak seen sago sëriñ Sam ñan ñoo koy déglu ñan ñooy déglu sëriñ Sam nit ñi danoo séddali ñett seydina muhammad sallallahu alayhi wa nee na nit ñi danoo séddali mel na ñetti suuf suuf su nangu soo xam ni dana téye ndox jariñoo ko ba génne ci meññet nit ñi jariñoo ko beneen suuf boo xam ni dafa kekke suuf su wow la dana téye ndox waaye du ko jariñoo ak suuf soo xam ni yoonam nekku ci du téye ndox du ko jariñoo yoonam nekku ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit ñi danoo séddali ko nekk ñetti suuf suuf bu jëkk bi mooy yéen ñii mooy soppe sëriñ saam soppe ma du Bamba soppe Rasulullahi ñi nga xam ne yàlla dong la ñu bëgg suuf si téye ndox jariñoo ko ba génn ci ay meññet mooy kan mooy ki déglu sëriñ Saam radiyallahu anhu wala mu dégg Cheikh Ahmadou Bamba wala mu déglu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jariñoo wax ja jëfe ko ba génn ci ay meññet ba defaru mën na caa àgg sax bay defare kooku mooy suuf su jëkk si mooy ñi fi daje te moo matale àdduna léegi beneen suuf si mooy ban mooy koo xam ne li ñi baax ñi li ñu wax téye na ko mën na koo tari li ñu baax ñi la ñu wax téye na ko mën na koo tari waaye daanaka assimilé wu ko jëfewu ko xam nga lu mu ci am nettali rek li sëñ Saam wax mën na koo tari li ma du Bamba wax mën na koo tari waaye fala ca yam kon téye na wax ja waaye jariñoowu ko waaye moo taneen lu tax ndax téye na ko ba ku ñëw mu jox la ko nga dem soo demee nag jëfe ko raw ko moom mooy déeg bi nga xam ni dafay téye ndox te benn gàncax du te sax waaye su su mala yi ñëwee naan su nit ñi ñëwee su setee ñu naan tànk yóbbu mën dañ ca sax fóot kooku jariñoowul ndox ma waaye téye na ko ba ñeneen ñëw jariñu ca kon déglu sëriñ Saam di ko tari baax na lool waaye jëfe ko ba am meññitu ko gën ki ci des nag moom ndox mi day ñëw rek wala ngaal dem yoonam téewu ko jariñoowu ko kooku mooy ka nga xam ni xolam ci boppam tëju na ci bépp waxu nit ku baax te bàkkaar rek koy indi nag dara indiwu ko lu dul bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama isa aznaba kaanat nuqtatan nuqtatun nuqtatan sawdaau fi qalbihi bàkkaar boo def mooy yàlla boo def mu def tomb ci sa xol tomb bu ñuul sëñ Sam jàngale na ko ba tàyyi in taaba wastaxfara suqila qalbuhu su tuubee jéggalu borom bi ñu nàmm ko ba mu set tomb bu ñuul ba dañ wa in zaada waaye su tuubul jéggaluwul na ci bàkkaar bi tomb yu ñuulee di gën a bari yonent bi teg ca ni zalika raynu lazi zakarahu llahu fi kitaabihi kooku mooy xomaatu xol bi nga xam ni suñu boroom mi ngi koy wax ca téereem ba kallaa bal raana fi quluubihim maa kaanu yaksibuuna kooku mooy xomaatu xol bàkkaar yi day bare di bare di bare di bare ba nekk xomaat ba muur xol ba ba étouffé ko benn leer dootul dem kooku ki mu gën a bañ mooy nit ku baax ki mu gën a bañ mooy nit ku baax du jëf-jëf ju baax bëggul nit ku baax te àdduna ñaar rekk ci nekk jëf ju baax ak nit ku baax ku am ku am ku amul jëf ju baax sax amal waa ju baax kallaa bal raana ala xuluubihim maa kaanu yaksibuuna moo tax bàkkaar moom nit moom sa sa sa mbokk dëgg mooy ki lay génne ci bàkkaar ndax bàkkaar bu bare dafa yóbbu nit ñi ci xolu yéeféer an nafsu amaaratu bi suu mooy nafsu ab amaaratu bi suu moom mooy bakkan boo xam ni lu bon rek la lay digal sañ nga ko def ko man nga ko su la neexee nga def ko njaaloo di ko bàkkoo nangu alalu jàmbur di ko war ni maa la man maa la ëpp doole maay diw maay diw maay diw kookoy naf su amaaratu bi suum mooy bakkanu yéeféer boo xam ni lu ko neex wax lu ko neex def su ko def da koo manu bakkanu yéeféer ngoo an su amaaratu bi suum moom xamul sax lu baax jéemu ko xam sëñ Saam soo koy déglu radiyallahu anhu sëñ Saam soo ko dégloo ñeen fukki guddi mu jële la ci nafsu amaaratu bi su lu mu gàtt gàtt dañ la yóbbu ci nafsu lawaama baat yooyu yëpp alxuraan ko indi an nafsu lawaama laam ki sa blaam mooy bakkan bi nga xam ni xam na lu baax xam na lu bon waaw man lii ma def nan laa ko mane daal di jéggalu borom bi waaw lii ma yàlla sant loo tax defuma ko nga xam ni moom bëggatul lu bon lu bon a ko bàyyeegul lu bon a ko bàyyeegul mu ngi ci diggante ñaari nafsu yooyu fujuuraha wa taqwaha léeg-léeg mu jeng dem fujuuraha dellu si daal di daldi di am lu ko naqari ndax def na lu yàlla tere waaye kee fekk ko ca su defee taqwaha daal di samt yàlla nekk ci loolu nekk ci loolu continuer déglu sëriñ Sam déglu sëriñ Sam zikru la day delloo sa xol génne ko ci àddina yóbbu ko àllaaxira rawatina nag suy waxtaanee de ndax àdduna suñu boro bi da koo teg ci loxo iblis fi léegi sa xol a ngi ci ib ci àdduna rek iblis la man kon xol fan lañ ko war a yóbbu ca yàlla ci yonent bi ca àllaaxira ca nit ñu baax foofu soo fa làqee xol ba iblis du fa dem iblis yoonam nekkul ca àllaaxira duniyaa bii la la la la mën dara moo tax sëñ Sam foo ko fekk kaset bu nekk dana ca wax dee wax joo xam ni dana la tiital ba nga suur ci àdduna mu jël sa xol yóbbu ko àllaaxira iblis du ko fa fekk mukk waaw sëñ Sam moom dee lay waxtaane day tiital nit ñi soo demee ci silkul jawaahir ca chapitre mujj ba sëñ sëñ Bàmba lu fay jàngale du lul dee ah sëñ sëñ Bàmba dee yu garaaw la fay jàngale sax waaye comme bakkan bëggul kuy wax dee li mu bëgg mooy ku koy wax ni ko lu la neex defal dem àjjana sëñ Bamba nee na man fa ala macha allah qiya maasa ku def li la neex da li la naqari ku def li la neex dajeeg li la naqari sooy déglu sëriñ saam daa mujj a jóge lawaama dem nafsul mutma inna daa jaar sax mulhama waaye mulhama du màqaama xaal la soo fa jaaree daa ma sa génn nafsu mulhama mooy lan bakkan bi nu yenkeewal xamal ko ay mbir sëñ Saam radiyallahu anhu bi ma nekkee Dakar dama daan dem centre culturel français comme animaux yi dañ ma intéressé seeni i tukkeeg seen i socio sociologie ma fay liir benn bés ba egsi ci benn borom xam-xam boo xam ni prix Nobel la ñu koy wax gën moo kon Konrad Lorenz ñu ni dafa am picc picc yi ni ñuy tukkee di jóge ci continant bi di dem ca beneen continent nga xam ni dafay jóge at mu nekk tey ji Brésil dem Afrique du Sud te fi muy départ ci Brésil garab ga muy taggi ca Afrique du Sud at mu nekk fa lay tag dana traversé ay géej traversé ay dëkk ak i réew ak i continent te amul busol amul ay jaaxal leen ñii ni ci montagne yi ñii ni ci ngelaw yi ñii ni ci biddéew yi la ñuy tegtaloo lu nekk ñu wax ko ba benn be savant yooyu bàgge benn picc ca île Malouine ca wetu Argentine picc ma nag nen na fa ba mu naawee dem ca garab ga muy tag ca Afrique du Sud bi doom ji jógee ba ñu tojtal ko ba nga xam ni mën naa naaw ñu defal ko moom it bàgg bàyyi ko mu naaw ñuy seet ndax dana fekki ndey ja ca Afrique du Sud xam nga kooku ma su jaar kenn du ni ko dal koo jàngal yoon wi picc ma naaw ni fër ba Afrique du Sud di cëpp ca garab nga toog ci wetu ndeyam di cëpp-cëppi savant yëpp gat pris Nobel laa wax ni ñoom xamatul ci dara ma dem jël sama set place heure bii laa egsi daa ko Louga di ko sëriñ bi jógal indi naa benn problème boo xam ni moom kooku mboole seen borom xam-xam yi ci àdduna yëpp gag gag gag nañu mu daal di ree ni ma loo indeeti ma nettali ko mbir mi mu ni ma kooku benn savant du ko trouver ilaa yow mi diini mu ni ma loolu mooy nafsul mulhama mulhama yàlla di la xamal ngay xam ni kii day dee ëllëg ak kii fi su de yooyu taxagul nga àgg foo xam ni mucc nga ci safara yaa nga jëm àjjana mu ni ma bàyyi ma yi foofu la ñu toll bàyyi ma yi foofu la ñu nit dana fa toll nag ñu koy ràng naan waliyu la wala xutbu samaan la te demul fenn mu ni ma dafa am fii ci kër gi benn taalibe boo xam ni dafa dem ci àll bi jàng na nag ba pare ñu defar ko muy taw di dënu bi dënnu bi xare rek mu daw fekk benn lëm benn garab mu dugg ci biir sëñ Sam nee na benn jaana nga ci biir jaan ju rëy daldi ni ñox ñox daw génn waaye attaqué waa ji waaye dafa génn dem yoonam waa ji mel na it dañ ko yow it génnal mu daldi ni bëreet moom itam topp jaan ji daldi dem feneen demul fa jaan ja dem fraction de seconde dënn bi ñëw écraser garab ki def ko dóob mu ni ma xam-xam boobu jaan ji am mooy nafsul mulhama tubaab yi duñ ko trouvé ba ila yow bi diin maay bu miimiya masaalikul jinaan sëriñ saa mboole seen lu ma du Bamba bind ngir jàngale ci diine wan leen yoon wi nit di jaar ba mucc àdduna ak àllaaxira sëñ saam jël na ko sotti na ko ci tubaab jox ko doomu aadama yi moom noonu la daan liggéeyee université gële nga xam ni fa la ñu nekk fa la tubaab bi daan yàqee nit ñi fa la tubaab bi daan yàqe nit ñi te li nuy wax xam nan ko ci lycée la ñu jaar dem université ci tubaab bi la ñu nekkoon fa la sëñ Sam tàmbalee ñëw ci biir université dajale xale yi nga xam ni jàng nañu ba dem université mu jiite leen da daan def su wàccee école franco arabe boobu mu nekkoon du ñibbi jëppal day taal otoom dem ca étudiant murid ya ca Sicap Serigne Cheikh Mbacke boobu fala daan dem jël téere yi nga xam ni étudiants yi moom la moom lañu jàngoon ku ci bëgg a jàng si tasawudu sixaar sëñ Saam jàngal la benn sart la amoon dafa ni leen ku ma jàngal téere sama sart ak yow mooy ki ko xamul yow yaa koy jàngal su ñëwee jàngale taswidu sixaar ña ko jàng jàngal ko ña ca jàngawoon jàngul woon mu jàngale jawharu nafis ñooñu jàngal ko ña ko jàngalu woon ñuy jàngalante di jàngalante ba téere yooyu yëpp bi nuy étudiant murit xam nañu téere yooyu yëpp ca université Dakar sëñ Sam foofu lay tàmbalee ca xale ya la jëm génne leen ci loxo Iblis yóbbu leen ci loxo Cheikh Al kon cant gi ñu koy sant ñu ngi noonu yi nottu de waaw ñu waaj rek buñ ba pare ñëw fekk ko ni ko yaa rasulullah ñun de ñu ngi ci njàqare tiit nanu ndax bi waa ji wax dañ la gis ngay ngay muuñ ma jóg tontu ko te jaaruma ca wax ju bon ja nga mer jóg dem ba mu feeñ ci sa kanam lu tax yonent bi ni ko li ma doon muuñ bi mu lay wax wax ju bon ji tontu woo ko dama doon muuñ ndax maa ngi jàkkaarloog Euh, malaaka mi lay tontul maa ngi jàkkaarloog malaaka mi lay tontul di ret di rétablir la vérité bi nga jógee di tontul sa bopp malaaka ba jóg dem ma gis iblis di wàcc si te man fu iblis di wàcc si duma fa fekk damay jóg dem sama yoon moom la Cheikh al Xadim ni rubba xawlin jawaabuhu fi sukuuti bare na ay wax yoo xam ne seen tontoo nga ca noppi walaazimi sumta laa tujib ahad na nga takkoog noppi te bul tontu kenn fii la larte gi bind pari dal ci kaw Cheikh Ahmadou Bamba nit ñi bëgg tontu fii la fekk sëñ Abdoulaat sëñ Abdoulaat dafa daal di jël télévision bi euh, boobu rajo moo am ni bu fi kenn tontu sëñ Bamba mën na tontul boppam bu fi kenn tontu sëñ Bamba mën na tontul boppam yéen xamu leen ni sax loolu mas naa am tontu mooy tax yëfee law d'abord du dindi la ngay tontu da koy gën a siiwal da koy gën a siiwal rek waaye soo ne pat sëñ Bamba nee na ku la tooñ nga muñ yàlla fayul la fay la asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu jëlaat kàddu gi rek ci turu sëriñ bi ndax ni mu ko daan defee yéene baa ngi fi waaye kàttan gi moo ci nekkul fi ñu toll te niyatul muumin ablahu min amali yaram wee sutante mu fi toogee yàgg fi sax moom ci boppam moo ko ñaan ngir ñu toog fii mu muñ li ko dal ndax coono rekk lépp coono tey yaa ngi Kédougou suba yaa nga Guinée Bissau gannaaw suba yaa nga Espagne gannaaw suba yaa nga Italie te lépp yu mel nii dong la xam nga taal oto jóge fii dem Kédougou jóge fa dellu si dem Guinée Bissau te yaay dawalal sa bopp ndax ay soppe sëriñ saa nga fa loolu ku ci dëkk léeg-léeg day laaj ak noppalu mu ni nag bala ñuy ñaan na xel yépp dellu ci soppe sëriñ sàmb mbëru sëriñ sàmb muy sëñ Saliou Sow daaw ba nu jógee fii ca këram lañu jaar su ko defee ku nekk defal ko faatiha ak fukki lixlaas ak benn ak mboole seen jil jullit yépp bismillah rahmaan amin kon li mu nuy jottali rekk mooy jottali mooy ay kàddu ngërëm ndax nee na lii ngeen di def moom ngeen ko defal ndax moo koy jiite muy yan boo xam ni woy juróom wa bàyyil na ko fi di ñaan ñu ñépp ñu ñaanal ko yan bi woyef ci moom ba mu àggale ko fu kawe njort nee mi ngi gërëm li taxawal lii ak i waajuram ak i waa gox bi ak ñi wuy ak ñi amoon yéene wuy si te mën noo ñëw di waxit ni nii ngeen ànde ñu saxal ko ndax euh, mbooloo mooy doole rawatina jullit al miraatul muumin beneen addis ni miraatu axiihi nit mbokkum jullitam mbokkum daayiraam mbokkum kuréelam mooy seetoom waxuma leer ga nga xam ni mooy gëndoo jóge ci ku ne ba ku ci ñëw soo indi woon leer gu mel na sondeel biir daayira bi ngeen daje rek ba leer yi gëndoo sooy dem leeru ku nekk nga yóbbu te ba ngay ñëw sondeel nga indi te it mbooloo mi li koy tax a jóg mooy ku nekk nekk sa seetu moroom ndax cawarte gi nga am si diine soo demee ca daayira ba ba gis ku la ku la gën a sawar fuuf kooku mooy sa seetu bi lay wan ni sa cawarte des na moo tax jullit mbokkum jullit dong mooy seetoo nit daa ko ëppale fuuf ngeen ànd ci cheikh mu cheikh Muntaxa Mbakke ibnu cheikh Madul Bachir nga yore million sa poos mu yore cent mille francs ci poosam nga jël trente mille francs jox sëriñ bi mu génn cinquante mille francs jox sëriñ bi kooku mooy sa seetu su ngeen ñibbee daa xam ni war ngaa yokk sa loxo te moo la ko jàngal loolu mooy taalibe loolu mooy daayira bés bu nekk mu jàng xasidaam soo ñëwee di jàng xasida xëy na benn yoon par semaine soo ko gisee bés bu ne bés bu ne daa dem ba defaraat sa toogaay kan moo la ca xëcc moom kon ay nit suñu àndee dañuy xëccante jëm kaw waaye duñ xëccante jëm suuf noonu mu ci daayira noonu la wallaabale it ci ay nit ñu ànd moo xam ay xarit lañu moo xam ay wey dencan te lañu ku nekk da nga war a xëcc sa moroom jëmee ko kaw waaye doo ko xëcc jëme ci suuf loolu mooy daayira moo tax sëñ Saam dafa sawaroon ci daayira yii wax naa leen daayira étudiant murid day wàcc du ñibbi du ñibbi këram de day dem ca daayira ba jàngal leen nekk ak ñoom ba julli fa timis taal oto ñibbi ndax xam na li muy def ci doomu aadama yi kon sëriñ bi nee na nii ngeen ànde nangeen ko saxal te yokk ko te yaatal ko te yàlla rekk tax nag te yàlla rekk tax ndax quantité moom qualité ko gën te lii ku nekk xam na ni qualité la ku nekk lii xam na ni qualité la kon nee na mi ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan sunu borom bi defal nu àdd sutura àdduna ak laaxira mucc àdduna ak laaxira jàmmi àdduna ak laaxira teraangay àdduna ak laaxira wërsëgal nu aajo ju fej fajoog mbir mu jub bi jaayu saydul bu joodu alami suhud sunu borom yàlla na nu xiir ci sa bopp te jàppal nu saw yoon yàlla na yàlla na nga nu taxaw saay rek baati kon li ñuy def lu taxati moo ko moom laay bëgg a wax te mooy borom moo ko jagoo du seen moroom ne leen gannaaw mu nekk nam addiye bawoo gaboo jëm tuuba ci li ma xam yal na ñu tabbi tuuba addiye bawoo gaboo jëm tuuba ci xam yal na ñu tabbi tuuba makkata buñ ca jotiwul ca nekki tuuba mbakke soriwul ñu def ko màkka tey jubal pas-pas yi ngir sa yërmande bu ñu gisul yooye jumaa te gis fi yow ngeen gi jumaa ñu def ko muy yooye jumaa ngir bëgg a am sa yërmande dootul siyaara jeeti faas dootunu aj niyaa di ngeen gi aas yow la ñu jébbal sunu paas dogal nu gaalu yërmande yow la ñu jébbal sunu paas dogal nu gaalu ki yërmande waaw